gannaaw buñ ko diglee woon ci campagne électorale yi ñoom nag daal di tàmbalee démissionné ci seen poste maire yi nga xamante ne nii askan yi ñoo leen fa taboon li ni mel nag doon li nga xamante ne ni ñu bëri daal di nañ ko rafetlu Ousmane Sonko Birame Souleye Diop ba Diémé ñoom ñi leen daal di fekk ci list ministre yi nga xamante ne nii jotoon nañoo démissionné ci seeni post poste li ni mel nag kii di Ibrahima Bakhoum di xam ne nii dañoo daal di sàmmoog seen kàddu. olof dafay wax ne jigéen bor la ñoom ñoo dañoo bëgg ñuy xaajale maire bi ak ka ca des mooy lan mooy ministre bi yoo xam ne am na yenn euh, ndomb tànk yoo xam ne boo ko yoree réew mi yëpp nga ko yoral boo nekkee maire ab gox nga ko yoral cumul de fonction administrative ñu daal di koy dakkal fii ci senegal li ni mel dina tax ñu daal di dakkal ci réew mi lépp luy politique politicienne. léegi nag comme loolu euh, gan na fi il faut ñu seet nu muy doxee. ndax lu mu leen di waaj wàññi la wala lu mu leen di indi xam bu fekkee da nga nekk ministre boo xam ne ji yow di ñëpp d' accord dañ ne yaa ngi liggéey liggéey bu baax li ngay def fi leen am na solo sa parti ba tey mun na tur bi mun na faa des ah oui non ñun suñu maire mooy liggéey lii ministre sàngam moo dem def lii vraiment ba léegi mun na teek ba tey parti mun na fa nekk di dund wante rek mu mel ni yile démission nar na jur ay loraange yu bëree bari ndax mairie yi nga xamante ne ni parti bii di Pastef daf ko daal di woon gagné ci élection locale yi ñu génn boo moyul li ci ëpp ku jég yi ñoo ko nar a jiite waat. keneen kay ñëw la conseil municipal bi dafa lay continuer xanaa du ñëw rek ne bon comme léegi keneen naa soppi lépp boo ko soppee lépp waa conseil municipal bi nga indi crise ci biir conseil bi boo indi crise ci conseil bi yow yaa yaa sa faute lay doon bu boobaa sax ñoom mën nañu fexe ba noo fa loolu tamit nag si. pàttali ni premier ministre bi Ousmane Sonko daal di woon na xam le ni képp ku kuñ tàgg ministre de la république di nga daal di tekki sa ndombo tànk ci mairie bi nga nekk ngir rek daal di jox sa temps poste ministère bi ñu la daal di jox ngir rek liggéey bi daal di jaar yoon.